nekk si yenn euh, termes yi dañuy ñëw wax euh, ci cas ki nga xamante ne moom mooy euh, sëriñ Bara Dolly Mbacké nga xamante ne defoon objet de commentaire si week bi samdi ak dimanche si benn sortie bu mu defoon ak Bijou ngoone donc mu mel ne ne kàddu yu bëri jëkkati na ko fa waaye tamit moom tamit jot na ay ay mbir yu bëri si kaw noddam digantem ak eh, maranyas ñom ñaar ño platu ci boobu les plateau Davida bañ fa nekké yëkëti na fa ay di yëkëti ay kàddu yi nga xamantene ki di Bara li yëk dégg nako neex ko ba mu quitter plateau bi am ay appel yu dugg ci emision l'émission euh, mu ku ci euh, Cheikh Bara Ndiaye ku ci tamit euh, Assane Diouf duggu di weddi kàddu yi nga xamante ne moom la baara dolli Mbàkke wax mu mbir moo xamante ne def na sujet de commentaire. nii laa lay xoolee yow. nga may xoolee noonu. parce que ki nga war a waxal nii. Mm. la xam naa ne làmminam bi damu ci poche waaw man xam naa loo ko wax da lay tontu. sama waay la ah mais waaye ñëpp la moom nitu nit ñi la. Mm. ay am benn problème. moo <laughs> moom la ñuy doon waxtaanee dañuy ñëw waxtaanee ko benn yoon. Mm. weddi nañ ko si Assane Diouf nee na Mara Niass euh, dinaa ñëw si cas boobu déjà mais Cheikh Bara Ndiaye nee na ki nga xamante ne moom mooy Mara Niass euh, ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Bara Dolly moom papaam la doon jëflanteel ba sax ne lépp li nga xamante ne wax na ko ko ba Cheikh Bara Ndiaye nekkee kaso que moom da ko doon jàppale di ko joxal dépense Cheikh Baara Ndiaye weddina lu ne mel waxi tani tamit euh, waxu Pape Alé Niang ba Pape Alé Niang def sorti ne kat au contraire moom moo ko dimbale ba mu nekkee kaso di jooy def kenn saa ba ñu bàyyi ko mais moom boobu ba tey ba mu génnee ba tey tegu ko bët mu jàppalewu ko defu ko dara mu weddiwaat ñu si bëri nag am ay kàddu yu ñaaw yu ñu teg ki nga xamante ne mooy suñu suñu suñu sëriñ la nag ñu koy ziar bu baax lu doy war si langum politique politique moo mon lu ne mais doy war xam nga ta doy war hmm. mooy lima ma lay expliquer sànq rek gis nga mak hmm. billaay mag du sol xaftaan yor say sikim gàddu say kurus mhm. mak da ngay mat li nga doon mhm. te ñoom ñii di wax ñi ñëpp dañoo jël àdduna téeku mhm. te gis nga bés boo juumee ba jël àdduna téeku yàlla moo lay ak yow àdduna lu yàgg la te nit yàggul waa léegi looy jàppee lu yàgg te woon na la yow mi jàpp li yàgg yow dangay ngay dem ba ko fi xam nga loolu ci xel rek àdduna yow yaa ko téye mais àdduna téewu la xoolal ma ñi bàyyi àdduna yépp àdduna da leen a bàyyi ñi bàyyi nag àdduna laa wax de àdduna de leen a bàyyi waaye yàlla def leen ab récompense bu tax loolu la ñu bàyyi woon ci àdduna yàlla defal leen leneen. yaa ngi doon wax sànq ba si revue ba ñuy wax waxu Cheikh Bara Dolly que euh, am na am na am na benn terme boo utilisé nit bu loolu sa ndaxo ndeyjoor def sa loxo càmmoñ waru koo yëg. mooy li ma lay expliqué tey jii bu fekkonte ne dafa jàppale ñooñu tey est-ce que euh, fi mu toogoon si penc moomu di ko fa waxee est-ce que fa foofu foofu la ko war a waxee. xam nga dañu naan l'intention vaut plus que tay da ngay gis nit ku defal nit ki uniquement xam nga lan la ci djublu mhm. pour se faire voir pour se faire remarquer pour dire que voilà man ma def li ma def li gis nga kuy def deug du wax mané est ce que yeug nga ni mhm. bi nga jëlé teranga ba defal ko doomi adama bi mu daw at ma samba yegul ma dem yegul diw mom nga defal lolu so togaton ba soxla ko mom mo xam nga wolu ko ñewul mo xam nga abu ko joxula nga ne monta de limako defal yep yalla neena faxna li ko defaron lepp mhm ndax kon yow biñ ko koy defal man mi taxu won mhm. maa nit diñ ko jël teranga budul teranga nga jox ko ko nga soxla ci mom ben yéré ab ko ko mëna la yéré duma la ko abal pak c'est-à-dire nga ne ak luma ma la defal lepp mané suñu borom dak na liñ ko defal teranga bi nga fa amon yépp yàqu na mooy tuyaaba bi kon ñom ñi nga xamante ni ay nitu aduna lañ moy lima la waxon sank ca ba mhm. su dé ñom nitu aduna yi ci seen bop ñom mëna tok mhm. di kee naan ko bi ngay nekk ca kaso ba da nga doon jooy kii naan ko sa la fa génne. kii naan ko waxoo dëgg man ñi génn fa. Assane Mbacke fële sëñ Assane Mbacke kat ca beneen boor ba. Assane Diouf non Assane waaw dafa wax. moo nekkoon jëkkëru euh, Ndeye wax na wax ju dobaar moom. Mm. moom nag daa jàpp kii sax kaddu yi mu utiliser man mënu ma ko utiliser. ñun ñëpp kay parce que sëriñ la dañ koy dañ koy war maa. waaye diw da ngaa mun a du ma ca yegg. Mm. mom moko wax vidéo yaa fi man sax télécharger na vidéo bi sax waye comme ñom am nañ possibilité ba kenn ku ci nekk bu duggé nga mëna a sa morom fofu man nak aw ma mais mais mais mais man mais man ka bobu non yépp débat bobu yépp problème bi yépp luma ci gëna gëna gëna gëna gëna euh, def ka mm-hmm. moy li nga xamante mo may Cheikh lu mu wax ki di Bara Dolly si affaire de jigéen ak affaire de kii bugguma see yegg mais euh, côté boobu moom dafa dafa dafa sensible si man ma ma ko yëgee sax après ba ma ko déggee sax mujj gi dama tax sama gemin jarul taf gemin wax dëgg neex yàlla jarul taf gemin xam nga man mi wan nag mi rek ngun nag mi rek am na lu bari soo xamante ni su ma ko bëggoon def may jafe mm-hmm. mooy li ma la wax sànq mm-hmm. bu la yàlla dénkee nag xaalis boo xamante ni dalaa bett yow loo loo bëgg am rek xaalis nga koy amee. Mhm. mais bu doon yow ak kase ak sa jëmm ji doo ko am. boo xoolee nag ñu ci bari ci suñu àdduna yi loolu la. Mhm. xaalis la ñuy doxaani bu dul xaalis du ñu am gel mhm. wax ma la jabar. nga gis ci ku ñaaw ba mal ne ñaawalo yor xaalis bu dul jeex. nit épousé ko te épousé wu ko moom mais xaalisam la épousé. épousé kon waxuma la ak ñoom ñii. nga xamante ni ñoom bu ñu nee diw mii de maa ko doon liiwal wala man ak baayam. yow jéggi nga fi nit kooku noonu ndax politique. léegi nga di dem ci baayam kon yow la nga defaloon ak baayam loolu amatoo ci amatoo ci. tuyaaba te ñoom ñëpp ku ci nekk leer na. am na que nekkul ne dafa mer parce que tamit nag. Euh, olof Ndiaye de de taxawal nag. olof Ndiaye nee na. waaw kan moo loolu olof Ndiaye olof man kuy kooku. xaw ma xaw ma en tout cas ne waaw léegi léegi léegi bàyyi ma bàyyi ma rectifier nee euh, terme bu ñu olof olof yi di faral di utiliser. waaw boobu gën a yomb si man. ku ñu tëfli nga tooy. te lu ñëpp waxee dëgg. ku ñu tëfli nga mais tëfli kay koo ko tëfli mu tooy. waaw te te waa léegi lu ñëpp waxee dëgg. lu ñëpp wax déedéet lu ñëpp wax ak li ñuy ëpp ci ñi wax wute na de mm. majorité la dafa am ak minorité. Mm. ñëpp bokkut ak ñi ëpp. bu fekkoon ne 100 pour cent la ñëpp est-ce que ñoo ànd ak en tout man daal. xam nga ne day fekk ni yu mel nii. bu problème bi daal en tout cas ñoom ay kilifa lañ. nañ ko nañ ko nañ ko lijjanti ay kilifa lañ parce que tey jii nii nit ñi xam nañ leen ñu ne fàng lañ du ñuy kilifa ñuy weerante seen biir nii ñii ñu ne fàng lañ yow boo amul bàmmeelu biir yow ñii boo leen joxoon réew mi xëy naa kon ku leen ñëw seet si leen laaj leen seen soxla ñi dañ lay dañ lay weer en plus su gën a grave mooy dafa def ay révélation sur Ousmane Sonko ba pare teg si euh, ki nga xamante ne moom mooy euh, Cheikh Bara naa ne carrément moom da naan ay Ousmane Sonko ki faralut ak kenn moom Abdou ak Amadou Ba lay jàppale Macky Sall lay liggéeyal mu doon mbir boo xamante ne doy na waar parce que ñun xameewuñ ko côté boobu fu ñu ko xamee mooy côté li nga xamante ne moom mooy euh, opposition. waaw mais du loolu coalition bi fës na si loolu bu baax. fii moom mais bari na ci ñoo xamanteni suñu la waxoon guddi gi la génn di dem di di seeti ji Macky Sall da ngay naan déedéet parce que nee na oh, Amadou Ba da doon yàgg ñëw ci këram avant mu nekk premier ministre bi mu ko nekkee mi ngi ñëw ma jàpp ni nag nit soo sa adversaire la ci politique mun ngeen réglé seen i affaire adversaire ci politique su weesoo politique bi. Mhm. ngeen dund yëfu nit ak nit waxuma la sax nitu nit gi nga bokkal nangam. Mm comprendre ba mhm. kon ku tok bané da fay jëfalante ak amadou ba mhm. fi lañu togon wax ni ahmed adara day dem di seeti wa nguur gi mhm. ak yenen ak yenen lool muñ tay ñak ci ñoom parce que ku ci nekk da ngay tok ñu xol naka la lay géré wa da tout ça lan mo ci wara nekk taxawayu askan wi ban lecture la askan bi wara am ci ñaar ñuy tok di wax faré ci nak opposition bi kenen ki di chroniquer ci Sénégal yi ba noppi am fu mu wane boppam ni fa la bok muy pastif muy monsieur bar ba te ñom ñoo ñepp su fekkee ne dañu ne benn objectif lañu am moy fexé ba ki Ousmane Sonko ngir mu bok ci élection yi benn objectif lañu am moy que pour que mu am stabilité ma japp ni nak ñom ñi di waxal yépp dañuy waxal Ousmane Sonko lo xamanteni sax xëy Ousmane Sonko euh, amul ci ñom confiance ñom ñoy waxal Ousmane Sonko mais gisoo Ousmane Sonko. di wax génne di wax. Mhm. est-ce que comprendre ba kon léegi man damay laaj. en tout cas ñu ngi xaar ñu ngi xaar daal leeral yi vrai médiateur. te mu nekk altitude. ak Pierre Goudiaby Atepa. Cheikh Baara mi yan information ak source yu leer lay am bay taxaw di wax naan Ousmane Sonko dina génnam wala maa ngay dox ci diggante bi xanaa kon. day day day dañuy am day kii day am raison seen kaw Ahmed Khalifa Niass. ci li mu doon wax moo tax ma ne la mbir mi moo jaxasoo ni su pokaanja jaxasoo na de joxas bi ci côté bi jaxatu bi ci beneen côté Sénégal faudrait que ñu jël paa yu mel nii yóbbu leen en retraite parce que lu yàq Sénégal yi ñoom ñii la mhm. kilifa ki fi sës ak ki na fàng mhm. ñii nag dañ fee sës rek moo tax ñu ne fàng waaye nag kilifa da ngay toog di la say problème même nit bu la defee doone mukk leb na ma àbb na ma ah, wala te réew mi léegi foofu lañ ba noppi ma ne ko nag ah boo ko fi fekkoon waaye doo daa ñëw léegi ma jox ko weeroo doo. Mhm, weer na ko de. lu ci zone doo ci maa. wax dëgg ne yàlla foofu la réew mi toll. en tout cas dañuy weerante de mais bon sant yàlla rek. nañu nañu weerante ah, politique la donc nañu nañ nañ nañu nañu ñaan rek euh, réew mi suñu réew Sénégal am jàmm te ñoom ñoom ñu ñoom ñu nekk ci biir di di ci dox jàmm yàlla na yàlla nañ fa fekk jàmm ñëw indil ñu jàmm je pense que loolu ëpp solo Euh, li nga xamante ne askan wi loolu lañ bëggee tam ñu def ko dañuy daal di euh, jeexalee li